bisimilah mbokk yi ñu ngi leen di jaar bu baax a baax yéen ñi nga xam ni yéen safoo la Tempe Events rawatina nag yéen ñu ngi bàyyi xel saa su ne. tey nag moom laa fas yéenee dalal bu ko defee ñu daal di waxtaane ak moom lépp la nga xam ni aajoo na si wàll zikkar su muy def Alsaan gannaaw ba ma la dalalee ba noppi maa ngi lay bàyyi nga nuyu ak soppe Alsaan nuyu naa la. dellu ziar bu baax Babacar ñu ngi lay ziare bu wér di dellu ziar ñi fi teew ñëpp ak mbokku taalibe waa télé bi gannaaw loolu di sant fu ma jógee waa Tëngéej. di at mam Cheikh Ibrahima Fall Lamp babul Mouridine di sant ñëpp rek di sant sama serigne bepp kilifa diine bu nek teungey tek wa mu mu nga ne ci Touba Fall sëriñ nga ziaré bu baax a baax di ziar ñëpp rek wa bismillah alsan Alsaan jërëjëf kàddu yi amna solo bu ko defé dama lay nga daal di rek may ñu dara bismillahir rahmanir rahim وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد الله يخير سمد وباخر سبحانه سلكنا في الواخي ونحن في كنيف المنيخ من كل شر وهذا الصنيخ سن بامبا نينا مستمسكين بالخياس أحمدا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 laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa faal jaaraama Cheikh Ibra Faal yow kuréer yaa ko ginde laa ilaha illallah faal laa ilaha illallah njëkkal war addunaay sandam njëkkal war àdduna yi sa ndam balaa mu laa war ndax àdduna war na buur war baa doola war na mag ñi baax ñu fi nekkoon njëkkal war àdduna yi sa njekkal wara Adonaayi sandam njekkal wara Adonaayi sandam njekkal wara Adonaayi sandam ndax war na balees war na nit ñoo fi baax ñi fi nekk koon njëkkal war Adonaayi sandam laa ilaaha illallah dimbalu faal yërmande Dole bir fal ak bite ndimbaloy fal yermande dole bir fal fam jafé addiye mom sere faal jajeuf jaajëf akasa amna solo amna solo lol itam ni nga daal ñuy ah bu ko defee nak dañuy daal di kan moy Alsan alsan wa alsan de ben doomu tëngéej la Alsan ben baye fal bu juddo tëngéej magge fa yaroo fa waaye di fa nekk nag di góorgóorlu bu baax ci sikar si ak liggéey liggéey bi gannaaw sikar jaamu yàlla la te liggéey tamit jaamu yàlla la waa ñu boole leen ñoom ñaar rek di ko di ko jaayante di ko def alsaan daal noonu la demee daal kooku mooy alsaan jërëjëf jërëjëf Alsaan léegi mënees nañoo dellu si tuuti si sa ndorteel fan ak nan nga daal di tàmbalee lii nga xam ni mooy zikar si. waaw zikar si moom bi ma koy tàmbali moom yàgg na yàggul. boo xoolee côté 2011 ak 2012 ca ko tàmbali waaw bi ma nekkee tëngee cuy dama daan nekk ci kuréel xaside yi waaye ba mu yàgg rek yàlla def ma dem Touba sama kër sëriñ ma nekk foofu Touba Fall muy dëkku maam Seera Fall bi ñëpp xam boo xoolee ay gébb Fall ak yëpp si ginnaaw lañ ne foofu daanaka foofu laa ne woon di di muritu di fa ne di tarbiyu ci sikkar si nag di fa sikkarantu comme bu ñu demee tool ba ñëw may nekk foofu di sikkar si daayira yi di ko def di ko def ba mu yàgg ma ñibbisiwaat Tëngéej mm-hmm. ma ñibbisee tamit yàlla dogal ma nekk fii si ay daayira yu bari di fi segaat mm-hmm. su mel ni waa diwaan Faal ak mm-hmm. waa kër Cheikh May si Guèye ak waa Nimsaati waa jokkul ba ci buun gi seen ginnaaw rek waaw ma ciy neex ma lu bare bare bare bare bare waaw yombul nag yombul moom yombul waaye jaayante nit ku ne tàmm ndorteel day am ni ñu koy waxee rek waaw di si jàpp baax ak sa mbokk taali bi itam di si jàpp ñoom ñi ma àndal nii di ma soññ bu baax nga xam ne dañ may gën a bëggloo affaire bi muy ñoom am dimi ak Ibrahima Jéeju nga xam suma su nyom sax suma ma sawar sax ñoom ñomay ñomay ñomay gëna soñu wa nga xam lool tam da bax fa ka timit nu mu nu mu ñaw ñaw daas ka tam da ci bax wa lool lool dal moy ndortel di dal deug la deug la jaajeuf alsan jaajeuf léegi nak dama bëggoon ñu daal di waxtaanee si samfal lan moy samfal ak seetlu nañ ni goor yalla yu bari yu zikkar duñ leen gis ci samfal bi lu waral lool deug la wa ndari ndari dari samfal daal di sikkaru laa boo xam ne da dëgg dëgg la moom bu jógee si xol ci xol la jëm sikkar yëpp dëgg lañ waaye bii dafa doon loo xam ne mu ngi jógee ci sëñ Cheikh Fall Baye góor moom nga xamante ne moom moom moom setu Ibrahima Fall la moom këram la sikkar Sam Fall gi jóge waaw mu doon lu dëggu te mu doon loo xam ne amul benn caaxaan mi lépp fa yàlla la muy baatu laa ilaha illallah nga xamante ne Serigne Touba daf ci wax lu rëy nee na képp ku ngeen gis muy gémmiñam di génne laa ilaha illallah rek nee na bu leen ko di noonu kon ba pare maam Cheikh Ibrahima Fall foofu la rawe moom dafa jël baat boobu mu jël ko saxal ko boo xoolee sant yi bari na waaye laa ilaaha illallaah Fall moom moom moom si moom rek nga koy dégg ah xam ne am na cër bu ko suñu borom may téewoon na ko ndax moo fi moom moo fi njiit sëñ Cheikh Fall boo xoolee après la Sam Fall kon nga xam ne lépp rek ci jeexitalu maam Cheikh gi la suñu borom di indiwaatee laa ilaaha illallaah muy Sam Fall bi nga xamante ne ku ñuy wax Baay Jibi moo ko moo ko saxal ne woon kër sëñ Cheikh Fall taalibeem waaw muy yombul nag Baye Fall bu ne dem war nga ko di jaayante di ko def sam benn jëwriñ bu baax saaliw da koy faral di wax mu ne nit mën ngay daje di dem cant ak mbooloo mi waaye am na boo xam ne yow rek yaa ko war di defal sa bopp muy jaamu yàlla boo xam ne wër na ne lii sonn nga si kenn fekku la si waaw muy façon yooyu day mel ni Sam Fall ak wéetal suñu borom yow rek ngay ne si bërëb di di di zikkar wala ngay jàng xasida wala ngay jàng alxuraan waaw loolu daal moom xam naa si as tuut ci léegi nag bëggoon naa ni nga daat koy yëkkati. borom baax laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah laa ilaaha waaw baax laa borom baax laa

إلا الله لا إله إلا الله فعل لا إله شيخ إبرا فعل لا بي مام سينجاي لا إله باخ مي laysa biga gumba faal Cheikh Rafaal yaa mat borom faal la dabay maam Sey Njaay la la borom baax may sabiga gumba faal Cheikh Rafaal yaa ñu gil dey faal rabbe maam sey njaay la Cheikh Ibrahima Faal la borom baax su dul woon ak maam suuru faal Bamba réer jaam ñi ñi beey faal la maam sey njaay la illallah la ilaha illallah fa la waaw waaw eh lu ma si jaay borom baax la ilaha illallah la Cheikh Ibrahima se njaaye la borom la ilaha illa la la la la abay mam la ilaha illa la la ilaha la faal defal jaajëf jaajëf am na solo am na solo loolu ah sama xol moom sedd na macha allah macha allah si kalimatu la ilaha illallah bi nga daal di yëkkati ah alsaan ñu ngi lay jaajëfalaat bu baax a baax a baax waaw bu ko defee itam bëggoon nañu nga daal ñuy wax maam Cheikh Ibrahima Fall waaye itam si ab tënk nga daal ñuy wax tuuti si njàngaleem. Ah. waaw maam Cheikh Ibrahima Fall moom daa doon jëmm ju yéeme nga xam ne ay mbiram moom boo boo ci duggul rek doo ko mën a xam loo xam ne da ngay làmbatu nii rek foog nga ñëw nga doon Baay Faal wala nga am xaritu Baay Faal wala nga dugg ci biir a biir ngay doog a xam mbiri maam Cheikh ndax ndax xam nga mu yombul daal waaw moom léppam rek ci dëgg dëgg la ko lépp rek ci dëggu ak ba pare gëm Serigne Touba bëgg ko yaakaar ko kon kooku kooku mbiram moom daf ko wane mu jub xoj waaw ndax moom danaan wax ne ah doom sëñ Bàmba dëkk la waaye man maa yoon wa cay dem kon képp koo xamante ne bëgg nga jariñu ci Serigne Touba rek war nga xool maam Cheikh Ibrahima Fall doxalinam nga koy jéem a doxe waaw maanaam du du loo xam ne da lay neex rek nga nekk ci ak nim la neexee déedéet da ngay xool moom fa mu tegoon tànkam nga jéem fa jaayante nga jéem fa nekk ndax moom boo déggee sëñ Moussa Ka mu ne ka woote woon ci àdduna mu ne ba ñëpp wuy si fàdduna dañ jéem a dëddu àdduna mu ne te jéem wuy ji mooy pexe mu ne baam Bàmba dem ca wam sa sin ceebri dem ca tam sa sin ne moo ñu fi des ko fi ku ñuy dese yi ne murit naka pexe kon nga xamante ne Cheikh Ibra amoon na fu ko mag ñi tegoon demee bu sëñ Moussa Ka mi nga xamante ne jamonoonte na ak woon moom ba pare di ko seedal lu mel noonu nga xam ne moom yoonam bi dafa leeroon mu jaayante ko lool nga xamante ne jàngaleem lépp rek si mooy siraatal mus te lépp lu nit di jëfandikoo rek lu dul njub perte nga ndax moom sangam ba sëñ Tuubaa wax na ko na yaa yor sibiyaanu la tastaxilu anil huda wastaxilu bil hulumi staxilu mu ne wastaxilu bil hibsi wa tilaawa waj talibu majalisa saxaawa boo demee si téere buñ naan tasumul si xaar di nga ko fekk foofu sëriñ bi day wax foofu ee eh, yéen ndaw ñi mu ne dem leen ngeen sàkku njub ba pare ngeen jàngi alxuraan te bu ngeen ko jàngee ba pare mu ne ngeen fexe ko mokkal te ngeen mottandiku jotaayu texee di yi waaw kon nga xam ne jotaayu texe mooy jotaay yi nga xam ne duñ fa wax yàlla duñ fa wax yonent bi duñ fa wax benn waaju baax mooy waral sunu borom buy indi mbugal du xool yow mu baax mi fa nekk nit day indi musiba ñëpp maasaale ko loolu dama lay jox firnde rek ci oto léeg-léeg nga gis soog bu rëy am ci tali bi kenn nit wàcc si liggéey waaye ñëppay gaañu am si ay blessures te moo ne kenn kooku la soxla woon xoolul ñii ak ñii ak ñii moom ñëpp la boole boom rek ñii am blessure ñii kii maanaam nga xam ne sëñ Touba ak maam Ibrahima Fall seen njàngale dafa jub xoj xoj xoj xoj xoj képp nag képp koo xam ne bëgg nga si jariñu ah doo doo doo sukkandiku ci dégg naa rek da ngay jéem a xool li li sëriñ bii digle nga di ko def li mu tere nga bàyyi ko ndax moom sëñ maam Cheikh Ibrahima rek ndigal te li mu digal doomu aadama lu baax la waaw ah, ndigal yooyu muy digle nag mu bàyyi ko fi ak sëtam yi ak ak ak seexam yi mu fi bàyyi ñëpp ñu jéem a tënku si ñoom ñu jéem a xool li ñu digal ñu koy jéem a def nga xam ne Cheikh Ibra Fall léppam lépp jàngale la wu jub xoole moo moo moo fi xewal moo fi xewal nuyoo di raam nee na moo nu tere nuyoo ne naam kon nga xamante ne lépp loo xam ne ak ñàkk taalibe la daf ko daf ko dindi nga xamante ne bu njëkk ba mu daan doog a ñëw ci sëñ Tuubaa sukk la daan def di raam di joxe àddee ñu naan dof bi waaye tey loolu yëpp képp ku ko deful yow la ñuy woowee dof waa kon nga xam ne li mu jàngale bëri na muy set ak sell fonk say waajur di jaamu yàlla nangoo liggéey loolu daal la Cheikh Ibra jàngale képp daal koo xamante ne yaa ngi ne ci leneen ay nit di ko gis di ko wax naan baay Fall wala Baye Fall déedéet kooku kooku kooku jëfewul ndigali maam Cheikh Ibrahima Fall léegi bu ko defee ban ban message ngay ngay ngay lancé ndaw ñi ndaw ñi nekk si yoon bi te itam xamuñu fu ñuy teg seen tànk ban message nga leen di lancé si ab tënk rek waaw si ab tënk mooy maanaam ñu jéem a xool ndax Serigne Touba ak maam Cheikh fépp fu ñu ne am na ay njiit yu ñu fa bàyyi ay jëwrin ñooñu ndax sëñ Tuubaa ñëwaatul di jàngalewaay bind na fi bàyyi Seex tam ñëwaatul di jàngalewaay waaye jëf nañu dégg jëf na jëf nañu gis wax nañu dégg kon ñuy jéem a góorgóorlu ndaw ñi jéem a xool jëwrin yooyu fi maam Seex Ibrahima bàyyi ñu tegu seen i tànk di moytu ndiku lu bare bare bare bare ndax sëñ Tuubaa dafa wax ni seytaane ak bànneex ak bakken ak duniyaa mu ne ku leen fital daaneel nga noon yu bon yi kon am na jëf yoo xam ne tamit jëfinu seytaane la rek mm. ak bakken moo lay xiir ci yooyu waaye sëriñ bi nekkul foofu kon ndaw ñi ñu jéem a xool bépp yoonu njub rek mm. képp ku la koy digal ak wàll bu mën a ne mu la koy digal jéemal tënku ci kooku nga jéem a xool yoonu njub nga nga tegu ci loolu la maam Cheikh Ibrahima Fall wax mm. jéggalu waat ah, jaajëf jaajëf am na solo kon nag bu ko defee ndaw ñi yéen laay waxal nañu gën a teguwaat si yoonu njub waaye itam te moytu lépp la nga xam ni caaxaan la bu ko defee dinañu mucc ndax jamono bu ñu nekk nii dafa doy waar dafa doy waar lool sax kenn xàmmeetul lu baax waaye itam kenn xàmmeetul lu bon kon nag nañuy tegu si njub moo am solo léegi Sëñ saan su ko defee dañuy daal di tàmbali si sa album. ñu daal siy wax tuuti. ndax gis nañ ni yàggul dara nga génne benn single. Mm-hmm. dippee ko yonent bi. lu waral loolu ak lan mooy secret Alsaan. waaw waaw yonent mooy li ma la waxoon sànq rek laata ñuy tàmbali ma ne. Mm-hmm. mag ñu baax ñëpp moom la ñu way. Mm-hmm. loo loo war a wax si moom rek mag ñu baax ñi way nañ ko waaye rawatina Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul min yaakaar. ñoom dañu way yonent bi te moom yonent daf ne waaju ma tagga way. mu ne war lool naa la aljana faw yaasin kon kon képp kuy jàng wala ngay way rek war nga di fexe delloo njukkal loolu ngir yonent bi moom moo wax loolu te te bi lépp lu mu wax rek dina ko def mbir mi nag moom dama yàgg di di di di déglu ay jàngkatu yonent bi mel ne ay alaaji Moustapha Mbaye alaaji Alla Diop di déglu lu ñuy wax si yonent bi neex ma tam mel ni sëñ musaaka Ka mi wax si yonent bi waaw ma jël loolu jël ko ma xam ne lii war naa ci mën a woy ci yonent bi comme te yonent bi wax nañu loolu rek su dul woon wax jooju sax ngir ak jaamu yàlla ndax yàlla wax na ne boo jullee ci moom benn ma julli ci yow fukk boo jullee ci moom fukk ma julli ci yow téeméer kon ak delloo njukka la ak dëgg la waxi suñu borom loolu dama koy jaayante waaye si li ma ne nii si laa demee ci téere Sëñ Musaa Ka yi jël fa ay mbind yoo xamante ne moom moo ko wayoon ma daal di koy daal di koy wayaat woy ci Seydina Muhammad waaw noonu daal la moom bu ko defee rek ah, nga daal ci barkeelu rek ay muhammadu rasulillah njol maggay waaja seyduna muhammad muhammadu rasulallah njol maggay waaja fakirim bi ñun ñi maanaam si dara jaam la amee jooja waay ku xam bay nga far way gan gi yoneen beey ndegam xam-xam leer na ba sarja yaasin sëriñ ne man sama geer gi ma yeeway du déglu géwal bu xol fa yaasin Sëriñ Tuubaa ne kuy taalif na taalif ca saaba yamba ca wàllu ya yaasin kuy way ta wayoo yoneen baa ci waayam araf ya nga dangeen da ngeen yoo fa yaasin te yoneen def ne waaju ma tagg aw way ne warlool naa la aljana yaasin li lee tax man ma dib géwalam ci baatin di way Seex Bamba mbër mi fi wutu yaasin borom taar boobee moo ma jaral di tuuru di tuuru ngir la mu doon fa yaasin solaat na robbu awoo kaalaane laamin layal na Seex Bamba ma nuy layol fa yaasin ku lay jaay taare dasam xel dem ci yonen mbey kataaru ba yàlla yonne ko saaru yaasin ku lay jaay taar nasam xel dem ci taaxa wataaxiru ak mu taaru ñoo ku lay jaayi taar na sam dem ci maaxin kafar bakkaar ya kookale moo di ku lay jaayi taarooy na sam dem ci xaadi ka gindi sama wi areeroon yaasin ku lay jaayi taar xel dem ci noorun siraajullaahi kookale moo di yaasin ku lay jaayi taar xel dem ci muxtaar ka ne musawa manu tan yaasin ku lay jayitaat na xel dem ci yaasin imaamul mursalina ki yaasin muhammadu mooy turam waañu santu baayam wa Amadou Mbaate Xaamidu Mbaate Yaasin te Ahmadu mooy rahmatuna ci baatin te Amidou mooy nixmatuna fa Yaasin turam ya mu am dañu làmboo ci maana limub xeetam waa ci xewal fa Yaasin bari tur dana tegtale mbër ci maana te mi mbër kenta kaalew ko yaasin muhammadu rasulillahi jol makka yi waaja moo gën ñi gën ña woon gën ña yi bëgg ñëw muhammadu rasulillahi jol makka yi waaja sëñ bamba nee na wasitu bi rabbil arsi zil wal xawfi ma al mustawa wallaahu lihi muxlidun safi wasitu maal muxtaari billahi wa dawooy alayhi salaama man bii xat ma lax wi kenn du muhammadu rasulallaahi xayrul anbiyaay njol makkay waaja lu waay jàpp na bee allah wooy laaw kullu fadle yonen fadlallahu fadlawo addiya sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaajëf jaajëf am na solo am na solo loolu comme ni ma koy waxee rek nee naa képp ku yor baat bu neex eh, di way te taggoo yonent bi sallallahu alayhi wa jàppal ni nag sa way niil na ndax mooy gën gi mindeef moo raw si gaa yi moo jiitu si gaa yi kon kenn du moom Alassane léegi nag lan ngay waajal soppe yi waa ndeysaan waa jamono jii ñu ngi waajal lu bari sax moo xam ne ma ne koo lim sax di xalaat bu baax ay heures yoo xam ne war nañ ko mën a barkeelu daanaka ci biir feebar bi yëpp ñu ngi ciy liggéey di ci xalaat baax ak mbokku taalibe yi ak ñeneen di di so di santaat bu baax maxam mooy ménagère bi ki nga doon dégganteel ak ñoom Boubacar ak ñoom ñii di tëgg daal am na ñu ngi ciy sonn bu baax ñoom Fallou ak ñoom Pakamu ñëpp rek nga xam ne ñu ngi ciy sonn waaw ñu ngi ciy waajal daal lu bare bare bare bare si si si Serigne Fallou Serigne si ak maam Cheikh Ibrahima Fall loo xam ne lépp dañ ko war a def àndale ko ak xëy ni waaw lépp daal incha allahu rabbi ñu ngi liggéey bu baax a baax yàlla na yàlla def mbas mii fi ñëw yàlla na ko fi yàlla jële ci barkeb Seydina Muhammad ci barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall te lépp lu mbokk taalibe yi di waajal rek suñ boroom jàppandil ko waaw loolu loolu lool laal ah, jaajëf jaajëf mbas bi bëggoon naa ñu wax si tuuti nan nga koy dundee jamono jii nii metti na wala mettiwul si yéen ñi nga xam ni da ngeen di yëngu si wàll zikar si waaw ndeysaan waaw dara bu dëggoo si yow. am na am na nu muy ñëwee rek nu nu gàllankoor di ñëw surtout ñun Baye Fall du metti si ñun ndax maanaam ñun suñuy mbir xaaruñu mbooloo xaaruñu ñeenti nit xaaruñu ñetti nit wallaahi lazim ñun ñun kenn rek bu boo xoolee misaal ma jox la sax suñuy sikar ba muy taw sax du tax ñu arrêté kon nga xam ne ñun jàngoro yi du du tere ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy suñu borom amaana liñ tere rassemblement bi la waaye ku si ne si ñun ñi ñu ngi toog sunu kër ñii ci xasida yi ñu ngi ci sikar si kurus yi ñu ngi ci alxuraan ji di ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax ndax nit dara boo ci nekkee rek jëw jëwriñ Babacar bu bu dëggoo rek lu mënti ñëw du la sonal ndax ndax nit lépp looy tudd si làmmiñ rek mu ne laa ilaha illallah moo ci gën mu ne wala zikrullah wala zikrullahi akbar mu ne baat bi gën a màgg ci baat yi mooy laa ilaha illallah kon waroo ko di tudd dara ñëw muy mbas wala dara war nga ñaan waaye bu mu la teree di sàbbal suñu borom ndax feebar bi jaamu yàlla la comme comme ñun te ñun ay jaamu yàlla lañ te ñoo ko gën te lu yàlla bind doomu aadama moo ca gën wax ñu ngi koy dund bu baax nag di gën a sàbbal suñu borom di ko gën a sant ndax ab jaam day nangu dogal ndax ñu ngi doon dund lu neex di ko dund di ko dund mu xëy lii ñëw buñ amee nañu doxalee rek day mel ni li yàlla def neexuñu te li yàlla def dafa war a gën rawatina si si ab baay ndax borom bi du def daray asaar te lii di dinañ dem ba ciy nettaliwaat ay mbir yoo xam ne di nga xam ne lépp lu mu def am na lu ko waral waaw di ñaan suñu boroom yàlla na fi jëlee mbas mi te di santaat suñu sunu sang bi sëñ Muntaxa Mbàkke di ko jéggaluwaat si mbir mi xewoon fii Touba di tuubaat bu baax ci loolu nga xam ne ak njuumte la di jéggaluwaat bu baax ak xalif général des baay Fall mu ngi leen di jéggalu bu baax a baax a baax ne xam ne doomu aadama day juum ñu bëggeewuñ ko woon noonu waaye ñu ngi tuubaat bu baax a baax ñoom di leen ñaanal seen taxawaay yàgg fi si digle yi ñu digle ñoom waaw jërëjëf loolu daal la akasa akasa am na solo lool itam di ñaan yàlla itam feebar bii nekk suñu biir réew képp ka nga xam ni dal na la ñu ngi lay ñaan suñu borom fëgg sa bopp bu nga mën a delluwaat itam sa si sa njaboot